asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne jox leen ay xibaar mercato donc mbokk dañ koy dooree fële ci Angleterre dina ñëw si gaynde bu baax euh, Jacob Ramsey donc waa kii di Tottenham ñoo ko bëgg waa Tottenham comme ko ko dañoo dañoo joxe le seul show ak 20 millions mais offre boobu ñu def waa Aston Villa duñ ko bañ si fàttali euh, donc entraîneur euh, moo yoroon kii di donc joueur Tottenham bi de le seul seul donc ñu defoon saison bu baax du coup le moo nous ñu ñu que affaire en tout donc équipe bi di euh, Aston Villa bañ na léegi nga xamantene man nga nañu ko jox mooy Emerson Emerson nak mo nek Tottenham mom nak Milan AC bëgg dem wa Milan ñu waxtaan lépp ne salaire mo moo problème mais mom nee légui paré na pour wañi salaire pour dem Milan AC raar na si brésilien brésilien yi xaalis rek raar na si brésilien du coup moom pare na pour wàcc salaire rien que pour dem Milan AC réaliser jouer dans ce grand club italien donc bonne information boo xam mën nañ ko jox West Ham dugg nañ dossier bi on vous parlait des Everton bëgg nañ ko moom ak Lindelof matin maa leen ko don wax cette fois ci West Ham moo dugg sur ce dossier bëgg euh, donc kii di wan Pedro Neto Pedro Neto nag City Arsenal donc euh, ñoo koy bàyyi xel pour dire ko mu nekk international portugais mu un très bon joueur du coup euh, équipe bu Arsenal ak équipe bu City dugg nañ sur le dessus. jàpp naa ne euh, war nañ ko mën a am. Oh. beneen xëcc ko bu metti ci diggante Chelsea ak Liverpool pour Juan Bakayoko bi nekk international belge nekk fii di PSV Eindhoven ñoom ñoo ngi koy xëcc ko xëcc ko bu metti metti donc euh, jamono bi Chelsea bëgg na ko Liverpool bëgg na ko Liverpool nag xam naa dinañ ko jaay le projet Ligue des Champions et tout le projet dañuy defaat équipe ba pare entraîneur hollandais moo fa nekkoon nekk Feyenoord xam le profil xam le jour ba tax na euh, voilà Liverpool peut-être mën na avancer si dossier boobu bu baax a baax a baax a baax. mbokk yi euh, donc bu ñu continuer si ay information yu xamante ne dañ leen koy jox dañuy dugg un peu si suñu gaynde yi nag suñu gaynde yi kii di Mikayil Ngor Faye ñëpp xam nañ ne d'accord na ak Porto si lépp. si si fay bi ñu ko war a fay si jënd bi lépp donc visite médicale signature mu jeex on par parle plus maintenant nag tey léegi nii sànq dañ ne Arsenal dafa dugg si dossier bi commencé laajte commencé xam nga xam na ne instant yi euh, Barcelone soxla na benn somme bi benn xaalis bi mën nañ ñëw doubler leen xam nga donc def par exemple deux ans de contrat de plus yokk ko salaire bi euh, waa Barcelone bi ñuy xaar noonu quinze millions ñu def mën na am gaa ne Arsenal daal dugg nañ ne sur le dossier pour pourquoi pas xamu dem jëm ko ëpp mais man daal ah gis naa ne portée bi leer na ba pare leneen ab information yu mën a génne na wax neen Lamine Camara quatre moom doon ko ne jouera pas en Ligue 2 ko wax bi tous ces équipes là ba si Everton bu Gana Gueye ci la bokk donc Everton bu Gana Gueye maa koy commencé xalaat parce que am na benn information bi leen jox léegi si kanam di gis ne

donc y' a pas que Bayern y a Manchester United soxla na il y' a toutes ces équipes là euh, bah, c'est Tottenham ñoo ñëpp soxla nañ donc aussi toutefois day dem est-ce que du Lamine Camara mooy nekk très bon ça ñu remplace que Everton loolu question là, et boobaa moom damay gis ne loolu mën na nekk lu pour Lamine Camara pour décoller en fin carrière du côté de Premier League pour mën euh, lu mën a la Premier League boobu mu ñuy wax ba tey daan doole lañ Dandoy du côté de Manchester United ay waay Aliou Cissé tooñ nga Dandoy wa Manchester United ñoo ciblé 23 ans la am xale bi jeune le batay tey xam nga donc gis ngeen bi mu dugal coupe d'Europe bi gis ngeen début coupe d'Europe bi mu nekk gis ngeen Suisse taxawayam ci coupe d'Europe bi du coup wa Manchester tamit ñoo ngi gis performance yi ñoo ngi gis ne c'est un très bon boy capable de jouer ailier capable de jouer dans défense à trois pistons donc tout ça fait que wa Manchester United dugg si le dossier alu tooñ nga quoi Les kon Dandoy instant mooy national du Sénégal c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Faut que nous, nous, accepter. Ousmane Diaw quitte CD Mafra, moi, ancien joueur de Dar euh, de Midtjylland. Midtjylland, mon champion champion Danemark. xam suis suñu gagné boobu nekkoon Dar Salam fii Grand Yoff ñu bonne chance mu contre un défenseur de 20 ans. accord entre Kidi, Olympique Lyonnais et Nottingham Forest autour de 15 millions d'euros pour suñu gagné bii di Niakhaté enfin enfin man dama ko yàgg wax ni Niakhaté il faut qu'il change de club ndax lion peut être ce bon choix là après naa la defal mékoto de lion boo xamante naa la si gën a ay leeral ay leeral lion ña manqué woon na stabilité ma ne mais l'année dernière ni ñu ko jeexalee euh, deuxième partie saison bi pour man Niakhaté ñoom ñoo gagné sax Niakhaté bu fekkee andi na niveau bu ñuy xaasi moom non lion lion dina ñëwaat Ligue 1 France dina dina amaat benn position bu baax ndax Niakhaté c'est un très très bon défenseur franchement euh, donc mbokk yi li mu nekkoon xibaar yi. ci commentaire bëgg naa ngeen wax ma seen xaar ak seen gis ma jaajëfal leen wax leen ba beneen sur seen football TV.